waaw panel bii dafa am solo donc c' dans le cadre de benn sommet bu ñu am fii ci Sénégal nga xam ne les libéraux euh, yi nga xam ne ñoo nekk ci bitim réew ci Europe ci Afrique ci Pacifique ak Caraïbes ñoom ñoo daje tey di waxtaan ci nan la ñuy def ba am xar kanam bu bees ci relation yi nga xam ne Europe daf ko war a seq ak yeneen yeneen naataangoo yi ne ci Afrique. donc loolu lu am solo la ñu am tam nag tey boo xam ne sur démocratie attaquée maanaam démocratie ñun ñëpp xam nañu ne euh, mook coow ñoo ànd parce que démocratie conflit la ki dafay bëgg lii keneen bëgg le contraire démocratie contradiction la démocratie potentiel conflit la moo tax toujours dafay am ay crise xam nga gis ngeen ci États-Unis loolu laa commencé ci suma waxtaan ma ne gis ngeen Capitole pourtant ay nit ñuy jàpp ne ay démocrate lañ ñoom ñoo dem attaqué ko euh, gis nañu aussi li xew ci Brésil Bolsonaro ay ñi nga xam ne ñoo àndoon ak moom dañoo dem bi élection yi pare ñu dem attaqué ci cour suprême et cetera et gis nañ France euh, les gilets jaunes donc du coup d'état rek moom mooy attaque démocratie coup d'état ci la bokk moo ci gën a bon moo ci gën a ayib moo ci gën a mën a indi ay problème mais du coup d'état rek démocratie crise yi ak démocratie ñoom ñoo ànd maintenant lan la ñu war a def ba crise yi wàññeeku wax nañ ko fi c'est pas pour justifier euh, coup d'état yi mais defe naa jàpp nañ ne une meilleure gouvernance bokk na ci li nga xam ne ci la bokk Euh, formation acteurs politiques yi bokk na si euh, euh, partager les profits bokk na si inclusion maanaam population yi bokk nekk au cœur de la gouvernance bokk na si mais aussi tolérance maanaam maanaam maanaam muñ tamit ci la bokk donc je pense que loolu bu ñu ko jiitalee te loolu yëpp ay valeurs libérales la yoo xam ne nii ñun en tant que libéraux loolu la ñuy prôné bu ñu ko jëtalee defe naa euh, yu ci bare bare dinañ ko moytu ah li ci des nag mooy aussi ñu am jànkonte ak yu bees yeneen crise yu bees maanaam populisme tey mooy le premier facteur d'attaque de la démocratie gis nañu li xew ci Europe gis nañ li xew ci Afrique maanaam des discours démagogiques fondé sur euh, maanaam benn genre nationalisme euh, euh, ou benn faux patriotisme boo xam ne nii dafay dafay dafay nekk discours boo xam ne dafay yàq démocratie gis nañu aussi li nga xam ne moom mooy li xew ci ci coup d'état yi aussi ñu koy regretter di wax ne lii lii arme bi mooy ñu gën a former sunu armée yi def naa joxe naa exemple Sénégal une armée nationale boo xam ne da ngay xool armée bi dafay refléter la diversité ethnique fii ci Sénégal dafay refléter la diversité dafay refléter aussi la cohésion sociale donc loolu ak une armée aussi bien formée maanaam nga gis ne sunu militaires yi dañu dem jàng ci ay universités yu gën a mag am ay ay lijaasa yu kawe xam ne ñoom joxuñu leen arme pour ñu xeex ak population bi joxuñu leen arme pour ñu euh, faagaagal population mais dañu leen jox arme pour ñu protéger le territoire protéger les institutions garantir le bon fonctionnement te loolu ñoom ñu ngi ci donc je pense que loolu yëpp bu ñu ko tegee ci table bi dañ gis ne am na ay réponses maintenant loolu du tere muy am toujours ay crises comme ni ma ko waxee mais dinañ am ay réponses yoo xam ne dina atténuer bu baax les crises au niveau au niveau de la société démocratique. waaw xam naa ne loolu moom dafay nekk lu metti parce que société yëpp kenn trouvé gul bu ñuy ñiy jooy loolu populisme bi désinformation euh, fake news et cetera ñëpp a koy jooy. Euh, da ngay gis ne sax léegi léeg day am impact sur le processus électoral ak sur des élections euh, muy États-Unis muy France muy euh, Sénégal muy fu nekk ci pays Afrique waaw amul pays développé ak pays en voie de développement ñëpp a ci ci phénomène bu bees boobu solution bi nag man je pense que mu ngi ci éducation maanaam éducation des masses éducation des populations ba nga xam ne dañ mën a taxaw mën a xool ci li ñuy jot ci ay information flux yi ñuy jot lan moo ci nekk dëgg ak lan moo ci nekkul dëgg loolu nag formation lay laaj loolu ay pexe lay laaj loolu aussi dal lay laaj ba nga xam ne du ñu ne génn nañ ko ci télévision wala génn nañ ko ci internet bi rek loolu dëgg la donc loolu aussi euh, day laaj ay xarala mais kenn amagul réponse bi da ci des nag la seule réponse mooy la prudence je pense que loolu am na la deuxième réponse c'est la l'éducation de des populations waaw loolu moom dañ ci am satisfaction bu rëy euh, marine mu ngi def liggéey bu am solo euh, maanaam liggéey de d'identification di arraisonner pirogue yi ci kaw pour indiwaat leen ñu bañ a ñu bañ a def li nga xam ne yoon daf koy tere ñun dañu nekk euh, ay nit yoo xam ne euh, dañu gëm dem ak dikk Sénégal aussi pays d'émigration la ma sa nekk mais aussi pays aussi de de de migration donc loolu ñun dañ koy accepter euh, maaye nag dañ ko bëgg ñu koy def ñu teg ko ci yoon maanaam ku war a dem nga sàmmoonte ak ak ak charte yi nga xam ne moom lañ tëral nga dem te ñun def nañ si liggéey bu bëri maanaam déjà gis nga politique économique yi ñu def ci affaire xëyu ndaw yi plus de 450 milliards ñu def ko gis ngeen ni ñuy euh, dooleele pouvoir d'achat maanaam dañu am bouclier sur les prix boo xam ne gouvernement mu ngi koy def plus de 400 et quelques milliards aussi pour permettre dund bi xaw a woyof gis nañ subvention yi ñuy def ci affaire énergie yooyu yëpp c'est pour permettre d'améliorer le bien-être des populations mais du tere nag euh, am na ñoo xam ne attractivité bi Europe di am parce que da nga gis sénégalais bu fi nekk dajale 4 millions 3 millions 2 millions ci ay liggéeyam ba pare nar ko jël lépp takkee ko billet pour dem Nicaragua wala pour dem États-Unis wala pour dem France wala pour dem kooku xam nga du problème mu liggéey moo tax muy dem mais attractivité bi euh, Europe di am ci ñoom ci seen mentalité moom mooy tax ñuy dem donc loolu yëpp war nañ ko toog waxtaane ko je pense que le président avait dit il faut ñu am assise ci mbir mi def benn euh, évaluation xool ay solution mais euh, en attendant ñun li ñu mën mooy la prévention et loolu c'est la marine qui fait un travail la gendarmerie dans le cadre de l'anticipation et la prévention ci renseignement yi ñuy am avant même ngay dem ci gaal gi dinañu am ay yu bëree bëri yoo xam ne duñ ko génn ci presse bi mais am na ay ay opération yu bëree bëri yoo xam ne déjoué nañ ko grâce à au renseignement de de la gendarmerie nationale.